وجهت وجهي لمن تكريم بانا في شهر مولد من في البحر ربانا وجهت وجهي لمن تكريمه بانا في شهر مولد من في البحر ربانا وجهت وجهي لمن تكريمه وكرمنا في البر والبار منه الله مولانا كرم بكل يفي سيوم توسعة حتى أقيم لله kat tuuti na waaye yombul ndax barab bu ni mbo ay gone ndaw rek ñëw tënku te boo ci wàññi woon daanaka ñaar fukkaat fanweer ña ca mag ay ñeent fukkaat la ñu am ñu di làmbatu ba def li li waxe neen mayewu ku bëgg dara it faaw da ngay jël sa dara nag daat ko cay tàbbal wax dëgg yàlla xam naa daal damay wax ne léeg-léeg bari na bu ñëwee ci màggal gi rek faaw ñu amug réccu ndax dañuy waaj di waaj ba am lu ñu bëggoon te duñ ko man ndax daanaka boo déggee cotisation yi ak nañ koy laajee dañuy wax ne ku am weer weer wane 1000 francs rek nga joxe ko kon kenn ku ne sa portable boo ko seetee li nga ciy def ci weer rek ëpp na 1000 francs ñu ne la ñu dajale ko ci góor gi jigéen ji ñu ne ko téeméer nga ciy joxe kon góor ñi ànd ak ñun di ak jigéen ñi ñuy pasteefu ba def jëf ju toll nii am na ñenn ci responsable jigéen yi ñoom bi ñu dajalee ba pare sax dañ ne duñ joxe 6000 11000 yu góor yi la joxe la ñuy joxe 12000 yu góor yi joxe la joxe waaw xam nga loolu buñ ci yemoon mu doy ñoom ñu naat nañ lépp luy niroog ndékki li laax beeg li ci lépp ñun ñooy jël suñu moyen ñoo koy def ñooy jënd sangal si defar laax bi wut soomi wut suukar xam nga loolu ñu ne ñun ñun ni suñuy nawle rek la ñuy def la ñuy def parce que ñun njaaxum ñun rek moomuñu ko kon li ma waxoon na jàmbaar diis ko fale ci kër ca waaroo lañ koy fale seen Pastef rek moo tax ñu fal leen kon Diop yaaram ñi ngi lay siyaare di la ñaanal xam naa ginnaaw jataay euh, xaw naa yàgg te temps yombul ñi ngi leen di bëgg rek di leen safoo daal di ñaan suñ borom doon leen xewal bu ko defee ñun bu paree rek waaw waaw waaw ndeysaan waaw lii ñii ki jëwriñ sëñ Talla Diop la ñoo nekk waaw ak doomi sëñ Balla Diop bi waaw sëñ si la doomi sëñ Balla Diop doomi doomi sëñ Baara si la waaw sëñ Balla moom day sama xarit lool moom yi nan ko lool moom it xam naa bi ma gisee sax léegi moom laay laaj naan ko ndax doomam moom ñu ngi koy siyaare bu baax di siyaare sa waajuram moom it sëñ Balla mu doon ku baax ku bëgg jaaxu ku bëgg waa njaaxu ku bëgg bàyyi sëriñ jaaxu ak ak waa këram ñu ngi lay ñaanal ci taxawaay bi di fasante yow kóllëre te xëy na miinante gi yàggut waaye ñu ngi ñaan ci bari xasida it ñu gën a jaxasoo xam naa dana weccante numéro ba gën a miinante waaw sëñ Fallou moom sëñ Thierno ah waaw waaw sëñ Fallou Diop moom sëñ Thierno macha allah kooku di suñu baay di suñu xarit di suñu sëriñ wax dëgg yàlla macha allah si ñoo ñu ngi koy siyaare ah, baax nga bàyyi de sa bàyyi de ku baax la ñëpp xam ko ci kër sëñ sooy bi yàlla yàlla dolli koy xéewal dolli ko tawfeex bu baax a baax ba bëgg yéen ci liggéeyu maam bi rek mu defe ko na kawe njortam bi bari kattal sollaay ñu ngi jégalu bu baax xam naa bu ñu jumee suñ bàyyi suñ bàyyi nuur maram jaaxo dugg si na léegi mooy ku bëgg jaaxo la am pasef lool sëñ daam di borom pencum njaaxoor borom Pastef suñu xarit suñu soppé mo ak ñay am Babacar ñay ñi ngi non tok ñoom bëgg penc lool xamna dal kon na ah, yewi sëñ bi bu ko defee ñu dal di lim gan ñi doon gën a continuer ci waxtaan ku sori woon nak dañu wax na nga jégé ci ndax kat ginaaw bis la bob dañ fi ñaan di ci waxtaan ñaan gi ñaan nañ ba paré nak waxtaan di daa des kon nañ jégé ku bëgg xam li ñuy wax nga jégé ci ñu continuer ci waxtaan tuuti wa salaamu alaykum wa rahmatullahi kon Fallou ñu jekkal jekkalaat jotaay bu fa rek commencé waat ak nooru jaaxo ñu am ak sëñ sa Thiam ñoom ñi tey nu bokk fi teew kon ngeen xam ne lii na lépp moom yéen a tey ndax bu dutoon yéen a tey lii du tey du am kon nag samay wax man xam naa lu ci war a mën a bari ndax lu ci war a wax lépp rek wax nga ko waaye li nu bëgg lépp tey ndegam lu lépp sëñ Touba rek a nu ñor te sëñ Touba rek a nu fi indi tey lanu daloon daaw dama bañ mu dal nu ndax li nga wax rek moo ci nekk tey buñ basé ab base fii tey mm-hmm. dajaley sees mm-hmm. wuti ay lu nekk lu fi war a mën a am ñu jëlee ko biir Touba Mbacké andi ko fii tey mm-hmm. danoo bëgg nu ñëpp tey nu bokk tey bokk jotaay ci base bii tey ba nga xam ne ku fi jóge rek doone diw lu ñu wax wala diw lu ñu def ndax nun ku nekk tey sa baaya ngee sa cosaan a ngee sa reerukaay a ngee sa lépp a ngee ku fa dem def fa say ñaan boo dikkee la la gënal am Pastef nag li nga xam ne ñun ñëpp moom Serigne Touba moo ne boole tey mooy kër Serigne Touba ndax sëriñ Touba moo moo nu boole ñun ñëpp tey nu bokk dajaloo ci baas bi nu bokk waxtaan ci baas bi Serigne si baax saa ngi nii ba ngoon jotee ñu bi ñun ñëpp dem seen yoon lii daal mooy wax na ñëpp ñëw ci baas bi ñu bokk dajaloo lu ñuy wax ñu dégg ko lu ñuy def ñu defandoo ko di ñaanal leen rek ñu yàgg ca wér ci saa geesoo di leen gis rek lan leen di ñaanal joom njàkk ma ne mooy wax waaye lépp jox naa di wax lu ñuy dégg boo sañoon la ngay wax kilifa ya nangu ko seeni xel ak seeni xol ndax yàllaay dogal lu ku soob sib jaam jataay bii dama cee gis ñoo xam ne bokkub démb waral seeni jataay tey ci woote njaaxo bii ngir yàlla ak sëñ Touba ak sëñ Samba Sow ak Cheikh Manar Diop Cheikh Awa Balla Gueye nga ne Baye Kabou Gueye maamam jóge dëkkale Thierno Gueye di doomi Baye Kabou mooy waajal mooy bàyyam bii tam woon rek nuyoo na maag euh, kàbbu fii ci Bangaaj ci woote sëñ Moussa moom Seex Sidi Maxtaar kon ku teew ci jataay ndax bokk démb ga nga teew ko te jotal sa tur ba bokk yow woote xam ne dangaa bokk ñoom moo tax nga di wuy si rafet na Seex Awa Balla Gaye Gaye kon sëriñ Seex euh, mii fi départ léegi te yàlla dogal maamam li maam bàcca su balla di doomi ndey ci maam Ceerno Birahim seenu bokk ak moom ak noonu yàlla moo ko dogal ci coobareem fexe taxul kenn amul bokk yàlla lay soom mu def la mbokk ya ya askan wa ak taalibe ya ànd ga ci yoon suñ tuwaal yàlla na leen si lii yàlla na jëm kanam te li ngeen fi yéene ci lu baax lépp yàlla ko yàlla yeggale garab goo fi seen cib ëtt la nekkoon baa ci wala te jamono yi ñu leen fii di jëmbat te fekkee naa jëmbat yëpp nii ma yii fi jaaxoo nii ma yee ci kër ma ndumbe menn at lañ leen fi jëmbat te daanaka rek boobu daanaka jamono jamonoy Senghor la woon nii ma la waxoon bant bi am na njëriñ kër gi neex na kon lii seen yéene ji yàlla na yegg ten fekki ko te tal ko Seex Muntaxa nag moom damaa mënta wax ci moom lu dul li ma ci gis te xam ko te doyloo ko te neex ma sàmba mii mu àndul ñu tuddee ko maamam sama xëy wax dëgg yàlla dañuy benn ci lépp yàlla ànd bi yàgg rafetaay bi jëm kanam mbooloo mi bokk dégg rakk ngi nii ci ñoom ak bokk gu sori sëñ Mbàkke moom Cheikh Baaram Cheikh Manar mi ngi nii ci biir kon ànd naa ki bokkam teew ci wootam jaaxo bii yàlla na mébétum waa Njaago yegg te yàlla fekkeeloon na ko ci jàmm Moustapha ni ñu gisee nag topp ci bàcc mais soxna Fat Samba seen yaay sama baay ba si la caw ndigalam rek la daan dégg ndax soxna ndak si la ak bàcce subal ba ci kanam ñu ngi ziyaare waa péncum Njaago yëpp di jël ziyaar bi ak nuyoo bi di ko teg ci loxol sëñ Mat Jóob mii di sama mag di sama kilifa te def ci man lu bari ndax defe naa li ma mën ci métier moom ma ko jàngal maa ngi mat caw di ziare sëñ Muntaxa Jóob ak mbooleem askanu Jóobeen di indi ay seere yu ndaw rek ci kintu tudde bii muy njaxat caam manis na ko mag manis na ko ëpple alal waaye kenn mënu koo gën ndax lu bari dafa daje ci moom dafa baax nangu am sutura man de bi ñuy gone ba léegi nooy ànd maa ngi moom ak Serigne Saw mii bu ñu demee ci barab boo xam ne bu ñuy jënde la bu rocc koo génn fay na bu yàgg te kenn du ko dégg lu ngeen ànd def ko yàgg moom yaa koy waxaat waaye moom du génne ci moom loolu mën naa koo seere ci moom yéen ñi it mën ngeen koo seere ci moom ay baat la yoo xam ne da moom damaa fas yéene woon koo yëkkati seeral ko mbooloom yépp ndax li may wax Serigne Sow mii mën na ko wax Dame Thiam mi mën na ko wax Ablaye mii xam na ko ni ma ko xamee lépp lu ngeen ànd def yaag moom su ko nit déggee yaag ko wax lépp lu mu la jox su ko nit déggee yaag ko wax loolu nag ak baax mënu ko weesu nit mën naa am lu ne manqué yooyu waaye njaxat moom manqué wut yooyu kon ñi ngi ñaan ci yàlla ak borom daaru mu yàlla yërëm ko te jéggal ko loolu rek laa ne woon naa ko si sànni wasalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñoo ngi leen nuyu bu baax di leen siyaare di leen baal wax di leen baal wax di ñaan sëriñ Mountakha Bassirou sa borom yàggal ko fi lool ak njabootu Serigne Touba gépp di ñaan Serigne Bara Diop xalifa Serigne Manar Diop sa borom yàggal ko fi lool ak njabootu Serigne Kër Manuba gépp di nuyu sëriñ Mountakha Diop mii nga xam ne tey jataay bi yaakaar naa ne moo bi mag ci ñu sant Diop kon Serigne Mountakha ñoo ngi foofu nuyoo bi tekk si loxo. nga tegal na ko ci loxo waa kër gépp di jéggulu ci kàddu yi nag kàddu yi nag dama bett moo tax liñ ci war a wax du bari noo ngi leen di siyaare yéen ñëpp di leen balu àq di fab nuyoo bi di ko teg ci loxo sëriñ Modou Ndiaye mi nga xam ne mooy jëwriñ ji mu nuyul ñu waa kër gi yëpp waa Touba Pencum Njaaxum yëpp di leen sant bu baax ci jëf ji ndax jëf ji buñ demee ba daje fi yalla ak seen jëm yee tax ndax dëkk bo xay dañu dem ba kenn nekkutu ngeen daje di def yëf ba yalla dogal ñu am bis bo xay dañ fi daje képp ku fa nañ fay cosaanoon di fi daje tam sokk ko seen jëm yi kon ñoo ngi leen sant bu baax di leen ñaanal sa borom gën leen dëbb kàttan te def leen aw mag te def leen mag moo am wërsëg ci barke seen tuwa te bàyyi fi nag sunu waajur yi di ko tàmbalee ci Baye Nuuru Njaay ak rakkam yépp sama borom bayyi len fi tan yag sen ginaaw di len sant nak ci li ngeen wax ne di bis bi da ngeen ko tuddé señ njaxat ci am dafa doon lu ko mat tay doon ciir bo xayen da ko mom motax ngeen jox ko ko yeyowu ko rek ngeen jox ko da ko mom jëf ko fi tamit ndax ko xol waxti wi daaw yeena futti ko woon ak mom di liggey ba def ci lo xayenti bi kon tey bu ngeen demee ba ne bis bi moom ngeen ko tudde dafa doon ak cëram moo tax ngeen jox ko waaye nag sant nañ leen baax ci jëf jooju ndax nit yi toujours mi ngi gis lem war a def te du ko def kon ginnaaw def ngeen lii kon yàlla na leen sama borom fay te njaboot gii mu fi bàyyi sama borom teg ci loxo ci barkeb sëñ Tuubaa ci barkeb kon jërëjëf moom mënut a weesu jërëjëf njaxat nag moom day kenn nun de suñu rakk la maa ngi magam ñoo bokk lépp waaye dama mujj bi ma demee ba gisatuma sëriñ dama fob lépp joyal ko ci moom ba yéen ñi muy àndal sax xamoon ngeen sama diggante moom am na tur wu ma ko daan wooyee loola lépp jëloon ko def ko ni maanaam fa ma tegoon sëriñ Thiam damaa wëltu woon teg ko foofu ba loolee ma seqoon ak sëriñ bu ma ko jubee tur woowa laa wooye mu daw song ma nag ak baaxam aku waaye fa ma aku bëgg nitam waaye nag euh, loolee du ko réccu tey ndax képp koo xayante bi àndoon nga moom bokk ak moom dëkk bi soo jullee yaa ngi koy fàttali tey it fii kenn soxu fi de loo fi man di mel ëllëg da fi jóge ñu koy nett kon nag ndox ba ko sama boroom xiiree ci mu nekkoon ci lu baax ba bi fi jógee kenn ku ne kenn mënu koo waxal lenn lu ñaaw muy dëkk tubaagam newoon muy dëkk bi mu juddoo kon yàlla na ko sama borom xare àjjana te waaye fa suuf ci kawam njabot gi mu fi bàyyi sans borom teg ci loxo magam ji fi nek ñukoy wax musa yalla na ko sans borom gëna a ci sunu kanam ci barke seigne Touba kon dal do ngi leen sante bu baax seigne Abdou ah li nga wax ci métier bi mom dañ ci sante yalla bu baax ndax mbir bu fekke dañ la ko jangal nga wëlbur ko dem ba man ko wëlbur jëlat ay nit di leen ko jangal kon da nga delloo ah, ah ko ci walaf ndjay yi Barthélémy seen ndaa la kon loolu moom jar na sant jërul sant ndax bu fekkoon da ngeen nekkoon man fa ngeen waroon a jaar jaarul leen fa tamit loola du leen fa fekk waaye da ngeen a dikkoon def ma ni seen mag yi ngeen bokkal ndey ak baay ma teew eggoon naa ci ne lépp lu muy def sax bala mu cee tàggu bàyyi ñaaw mi damay tàggu ba eggoon naa ci ak moom keroog bi mu jógee Mali dama ne ko giñ naa ko sëñ tuwaade métier mi kenn mun la cee teeteet xëy na nag nit mun ta ñàkk jaar-jaar lol tam yaakaar naa fi ne gis nako nak biñu tassé barki sant na ma kon dal na ngeen góorgóorlu bu baax xam nit lepp lu muy def lu netti li rek la netti bi na ci xalaat na dana to wax wax ko kon no ngi sant bu baax di ñaan ndaje mi yalla bu mu doon sun mujj gi dajé te lepp luñ fi jëfit yalla nako sa borom nangu waaye nak dëkk bi dafa doon dëkk bobit ni rek la mëna mel ndax sun maam ya fi fu nit mësa réere maanaam boo fi jubee taalub jàngoo lay gindi kon bu ngeen demee ba defaat lii la lan fi rek fi kon na ngeen gur ba bu ken kenn fekk ci lu mu leen di tere wala lu mu leen di sikke ñoo ngi jégalu ci kàddu yi nag di leen sant bu baax di ñaan ñu dajewaat fi na ngeen si déwoon ci barke sëñ Tuuba jërëjëf maa ngi jégalu nag ji ko def ci man ku wat pak ba la xamee foo dem ñu fakk la sëriñ bàcc mii ngay dox muy bëgg a waxtaan ak nit ñi di sànni seen ay kàddoom ànd ak i bokkam yi toog kon yàlla na seen ànd bi yàgg te yàlla doole ci xéewal barkeel ko ndax li ma gis ci moom ba tax tey ma jokkuwaat ci moom na ma jokkoo woon ca maamam sëñ Moodu Abib teg ca baayam teg ko ci lépp yàlla ak maam Samba Sow ak Cheikh Mandane ndax bu ma taxawee ci diggante njaaxo ak caameen ak ñangeen daaru xaaxaam ne ne ma génn léegi jaar ci gent bi maa ngi aw ci ëttu Baye Mor Dioum ak Baye Mor Xëri Njaay góor Baye Bara Bigé Caam Baye Ibi Sow Mbay kon cosaan ku ko bëgg ku ne yàlla ngay wuyu salam woote ci ab jullit kon yàlla yéene yi yegg ten fekke ko léeg-léeg ca jamono yooyee damay bëtte fii ma jaar tey ba yegg ci njaaxoo jàll ba ca xur kër ni jaay fa Mour Ndiaye Fakumba di bàyyi nooru mii jëf yooye amu ci lenn lu ma fàtte baa lu ma réer kon nanu ñaan ni nuy ñaane Cheikh Mountakha Cheikh Bassirou Anta Niang Cheikh Abdoulaye Modou Mbenda Fall Serigne Bara Diop moom soxna Ëttu Matar ak Cheikh Manar يقتل سنو كرم تخلاف كرم البخاري تعندكم نون قل بار ما قبتش كرم الله الرحمن الرحيم والصلاة على رسول الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله على كل عالم مبكي في تويا ما نجي لين دي نيو دي لين سيارة بباخ دي جيتل كي نيو بي أزيارة بي سائد الفضلة شيخ محمد المنطقة yàlla na fi yàgg lool te wér te ànd koog moom di sàkku ci mbooloo mi ñun ñëpp nañ ko wax ndax loolu mooy suñ njariñ ñun murid yi ak mbooleem jullit yàlla yëpp euh, di jéggalu kàddu gi nag ndax danoo ànd ak suñuy kilifa te suñuy at néew lool te li ñu dal ci kër Mandoumbe Khary moom ku ne xam na ko ku doon suñ bàyyi rek suñ nijaay nga ndax loolu la yàlla dogal ci mbooleem lu aju ci njaboot gi yëpp rek Euh, ñi ngi leen di nuyu ci turu kër ma ndumbe xari ñu ko waxe won léegi ñaanal sëñ baara jóob mi nga xam moy khalifa xalifa kër ma ndumbe yàlla na fi yag te tan te ko ak mom ak mboolem rakam yi mu ko seqal yépp suñu way jur na fi jógee muy sëñ cheikh jóob mom sëñ ceerno digal moom itam na ko ñëpp ñaanal lu yag fi te wër ndax ku am yéene la ku bëgg njabot gi la ku am yërmande ci njabot gi lu way di def bo geesoo gis ko man momi itam ku mata ñaanal la ndax kilifa da mënta ñak te yàlla da no jox kilifa yu mat sëkk sëñ bara sëñ Cheikh Diop sëñ fallu mi ci daru xaxam sëñ Mahmadan mom sëñ Naar ko so mi ngi yóbbanteem nuyoo maa ngi len koy jotal bu baax ak sëñ noru Diop mi nga xamne moy xel ko sëñ Tamba Xari dam lol lépp ak jotal la rek waaye bu tuddé tuddee sëñ Baara rek lépp keur mën na xari la kon ñu ngi leen di nuyu ci seeni tour di len ziare ci bis bu mag bu tedd bi nga xamne bisu alcorane la bisul xasida la bisul yokku bokk la bisul def lu baax la ñu teew fi nag ànd ak sunu jëwriñ ñun ñi nga xam ne ñoo bokk ci sët yi ci sët yi Kër Mandoumbe muy sëñ Mountakha Diop moom sëñ Basirou Diop Samba Xari daal ñi ma jiitu wax nañ ko léegi fu ñuy defee lu baax rek boo demee fekk ko fa ak sëñ Mbàkke mii nga xam ne mooy doomi Serigne Baara fu teew rek mel na ne Serigne Baara teew na. ak sëñ Moustapha Diop moom sëñ Birahim ak mbooleem ñeen àndal ñu ñëw fekk fi sëñ Thierno mi moom sëñ Cheikh Diop mu jiite woon li ëpp solo ci bis bi muy alquran loolu nag alhamdulilahi rabbil alamin la ñuy wax liñ fi jàng ci alquran ak xasida lépp yàlla na ko yàlla nangu ci barkeb Serigne Touba liñ fi def ci lu baax lépp yàlla na ko yàlla nangu ci barkeb Serigne Touba ndax kat sun mag nga lii rek lañ xamoon boo ñëwee ci këram Mandumbe xëri ma sancoon kër Mandumbe ba dëkk yi yëpp soqi koo ci tey li muy sanc kër Mandumbe dafa yàgg lool 1799 ak léegi yaakaar naa ñetti téeméeri at matugu ko waaye soreetu ko kon nag loolu sanc bu yàgg la sanc bu yàlla barkeel la mel na penc la woon te tey penc yi bari na lool kër Mandumbe xëri njaaxo daara jóob kokki guy loolu lépp ci kër Mandumbe xëri la ba ca kër Mandumbe Sénégal ndax lépp seen suuf si doomam kon nag loolu bu ngeen woote fii ci péncum njaaxoo woote bi demee nii muy alxuraan ak xasida ak yokk bokk loolu day alhamdulilahi rabbil alamin yàlla na ko yàlla nangu ñu ngi leen di siyaare yenn waa daayira bi yëpp tàmbalee ko ci sëñ Modou Ndiaye mi nga xam ne mooy njiitul daayira bi ak mbooleem waa daayira bi sëñ laay Ndiaye sëñ Góora Jaaxo mi nga xam ne jëwriñ la ci kër gi kër gi nga xam ne maa na ca booba di ko saytu muy kër sëñ Modou Habib sëñ Góora Jaaxo mi ca jëwriñ la yo bokk ci jëwriñ yo di fa taxaw taxawin wu rafet loolu bu ma ñëwee faaw ma leeralal leen ko ndax dafa bokk ci jëwriñ yi ñuy taxaw ci liggéeyu sëñ Mour Abib bi ñu yor ak sëñ Birahim kon moom itam ñu koy sant bu baax di ko gërëm di sant mboolem waa daayira bi ñoom ñëpp xam nañ leen ku ne mën nañoo jaar ci sa di nuyu sëñ Mour Diop mii di man mu baax ku bëgg lu baax moom itam ak mboolem ay rakab ak mboolem waa dëkk bi yëpp. di nuyu Baye Nooru mi nga xam ne moom la yàlla teg ci bopp njaboot gi yàlla na fi yàgg te wér ndax jiite dafa metti lool te jiite na njaboot gi ba noppi jël lépp delloowaat leen ko moo tax liggéey bi yomb nii kon nag Baye Nooru ñu ngi lay sant bu baax léegi la ñëw ca dëkk bu mag ba ñëw ci kër ga doon siyaare si kon nag loolu ñu ngi ko ciy sant bu baax di ko gërëm di nuyu mboole mag ñi mën naa ko mën naa ci tudd Baye Nooru Ndiaye mais ak Baye Bas Ndong Baye Bass Ndong it li ma wax ci góor rek laay wax ci moom moom itam ci kër gi la bokk di taalibe kër sëñ Samba Xaridaam àndoon ak sunu waajur bi sunu waajur jógee tam mu ànd ak ñun kon moom itam ñu ngi koy sant di nuyu mboolem waa Ndongeen yëpp di nuyu mboolem ñi fi teew ñëpp rek xam naa bu ñu ko toppee day gudd waaye ku fiy toog rek xam nañ la te ñoom ñëpp it kenn ku ne xam nañ wàccuwaay wi ngay am ci bis bi waaye da ngeen def lu am solo léegi muy décoration bi ñu doon jox. sëñ jaxat caam sëñ jaxat caam murid saadix man noonu laa koy tuddee ndax ndaw lañ nekk ci kër Mandumbe te kër Mandumbe fu fi dara yëngoo lu ci bari ñun ñoo koy ànd ñun ñëpp ñun ñi toog ci jataay bi waaye ku baax la woon bëgg lu baax la bis bii ku ci daan sonn la ndax su masaan ñëw fii la ñuy fekk saa fi masaan ñëw moo góor gone yi ñu war a ñëw di bay si pàkk bi wala ñu fi defar si dara ñoo koy ànd kon nag ku am yéene la woon waaye nag lam nekkoon di ko liggéeyal yàlla ak yonante bi ak sëriñ bi ak bokk yi tey la koy gis foofu tëdd ndax ñi dajee fii tey di ko ñaanal de loolu wax dëgg yàlla loolu rek moo koy jariñ te loolu nag ab la loolu ñu naan nit nekkee ci àdduna nay def lu baax ndax ñu di ko fàttaliku ndax ñu ñu ko fàttalikoo ko tey neex na ci xol yëpp gis nga bi ñu yëkk bu ñu yëkkatee li ñu ko doon décoré yaakaar naa ñëpp seen xol tooy na ndax ndax borom pësteef loolu ndax ku bëgg lu baax la woon kon nag loolu ak joxañ la kenn ku nekk boo nekkee ci àdduna rek nekkal ci la nga war a nekk ndax waar wi moom du jeex mukk te xamoo kañ la ak fan la waaye nag ci toolu Sëriñ Tuubaa la ne woon ba wàcc ba tey mu dellusiwaat ci cosaanam bokk yi daje fii jël bi jagleel ko ko loolu lay ñun ñu xam cosaanul bis bi ban ko tàmbalee ak léegi xam nañ ne delloo nañ delloo nañ yëfi boroom kon nag yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana te yokku leeram te njaboot yi fi bàyyi suñu borom tekki loxo ñu ngi nuyu mbokk yëpp góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ndaw ñi di leen jotal itam nuyu waa dëkk ba waa kër mo ndox yi xam ne tey bis bi dafa xat am ay xew-xew yu xew ca dëkkandoo yan dëkkal te foofa xaw a sori dëkk ba ñu bari xëy ca looloo tax ñu bari gisul leen gisagoo leen waaye nag ñu bari ñu ngi ci yoonu di ñëw waaye ñoom ñëpp ñi ngi àndanteeg yéen bis bi di bàyyi ñaaw ñëwee ak dem ñi fi teew rek mën nañoo yóbbaale ñi des waaye yéen waa daayira bi daal ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm nañ góorgóorlu bu baax ndax lii ñu sun maam yi defal day mënuñu leen a fay ndax bu juddu woon fekk leen ci waneen yoon it te loole rek ca la nekk waaye bi ñëwee fekk ñu gorool ñu suñ dëkk yi suñ dëkk cosaan yi teg ñu ci yoon wi teg ñu ci yoonu Serigne Touba kon nag duñ man lu dul delloo leen njukkal li leen mën a delloo njukkal nag mooy boole suñu bopp nekk benn rek parce que àndandoo. ta xamne lolu suñu borom borom ko ñëk sant wax ta si mo bi abdillah jamian wala tafarqu lolu nak dafa melne wa njaaxu bi degg nañ baat boobu seen ciosan li nga xamne maam ya ko goron yalla leen yalla katanal do leen ba ngeen mëna yeggale yene yi jul ya yalla man nako yalla nako def ndax jamono ji xat na lool te ku demul ci li ku demul ci li tam ci lanen rek ngay dem te lu ëpp li tam manam amul fenn te amuñu nak lu sun ciosan yi li may wax nag dama koy généraliser yemul ci njaaxo dëkk bu mag baa ne te njabootu kër Mandumbe ak njaaxo genn njaboot dong la waaye waaye gars yi nañ dellu si waat ci suñu cosaan bi te xam ne amuñu lu dul moom fu fi waay mën a dem ak loo fa mën a am fii doom nga mën a taxaw nag joxañ ne sa maama nga ci barab yee tëdd fii dong nga mën a taxaw seenu guy wala séng wala lu mu mën a doon ne sa maama ko fi defoon ci dig digal bi dong ñun ñun ñu toog fii fii dong lañ ko mën dëkkub Serigne Touba bi dëkkub Serigne Touba bi ñun ñëpp fa lañ dëkk waaye nag fii mooy sunu cosaan kon nag lii mu def yàlla gën a dëgër waaye ñun ñëpp daal rawatina ñi nga xam ne damaa tolloo ñoom jamono wala sa a wax ak ñoom nan xam ne li ñu am yombut suuf su yaatu sii maam gorol yaatu lool luñ bëgg def mën nañ ko fay def luñ bëgg a bay mën na koo bay mënees na fee jaamu yàlla mënees na fee liggéey te dëkk bee nga xam ne amuñu lu dul moom ku fa déparé balaa mat fanweeri minute nga ñëw loolu dañu ko am bëriwul. ndax ñun yaakaar day léeg-léeg nit xëyee ca Touba dawul ma 200 kilomètres door a egg ci daaraam ñun nag pour déparé Touba balaa ma fanweeri minute nga ñëw te boo ñëwee da nga naan saa tool maama nga ne saa kër maama nga ne te kenn du la ci fekk kon nag loolu nañ ko xam te jàpp ko bu baax a baax ñu ngi leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla na yàlla nangu liggéey bi yàlla na yàlla dëgëral leen yàlla na yàlla jàppale leen ba naal yu rëy yi nga xam ne naal ngeen ko fii muy kër Serigne Touba ndax kero bi Serigne Cheikh di di kër gii rek dama ne man mënoon ngeen kenn ku ñëw ne man saa kër maam laay dekkal waaye danoo jël maam yëpp xam ne moo leen boole waaye ñu ne nan def kër Serigne Touba maa leen ñoom de bu fekkoon ne dañ doon diir ñoom jam nañ bis ni que bis tey maanaam ñëw ci sa dëkku maam kenn ku ne bàyyi sa kër maam bàyyi la nga amoon ñu ne nan taxawal kër Serigne Touba ndax Serigne Touba rek a fi nekkat kon nag nan la na sëñ bi te bañ koo yemalee dara parce que yéen a góorgóorlu ci jaamu yàlla ak nangoo liggéey tawatandiku tooñ te lépp lu suñu yoon nekkut it ànd waaye lii daal yàlla na gën a jëm kanam bu baax a baax te jàpp bokk gi ndax dañ ko fee fekkoon ak bokk nit du ko defal boppam yàlla ñu ko defal kenn ku nekk suñ maam yi fii la nekkoon kenn ko ne man nga ne maam diw moo fi dàqoon a bay maam diw moo fi gënoonu fas maam diw moo fi dàqoon a def nangam bu ñu tuddee maam yooyu nag nga di ko demoo yow mi ab sëtam tey wala ngay doomam war ngaa wane comportement bu wane na sa njàmbaaru maam googee mi ngi ci yow man nañ gën a bu baax a baax te yàlla doon la te yeggaleel ñu suñu yéene te defal ñu tawfeex ci barkeb Sëriñ Tuubaa ñu ngi leen di sant bu baax fii nag liñ ko waxee woon rek ku fi ñëw ñun ñoo la war a ndax ñun la yàlla def kilifa yi bàyyi ñu ci barab bi te kër mën na rek njaaxu lépp mel ni penc bi dong la te kon ñu ngi leen di dalal jàmm ah, di leen sant bu baax itam te wax ne daal dëkk baa ngi nii ñun ñëpp nañ maasewaat fa yéene taxaw tem ci nu suñ cosaan li gën a suqalikuwaat yi gën a jëm ca kanam ndax mbooloo mi moom mate na ko booloom kër Madou Mbexe rek li ci aju man naa ne luñ bëgg a def man nañ koo def ndax néewaa na fooy dem ci réew mi wala bitim réew te fekkoo fa doone kër Madou Mbexe kon buñ booloo rek yaakaar naa suñu borom mën nañoo dimbale di ñëwaat fi ma tàmbalee woon ñaanal sëñ Muntaxa ma yàgg fii ñaanal sëñ Baara ak mboolem rakkam yi mu seqal liggéey bi suñu borom kàttanal leen di ñaanal kilifa njaaxo yi ak gone yi nga xam ne ñoo yor liggéey bi suñ borom kàttanal leen wàcce leen ay xéewal te yeggali seen liggéey na ci barkeb Sëriñ naa maa ngi jégalu ndax sama ñaari mag yi toog ñoo waroon a wax waaye lépp danoo xam ne comme maa leen nekkal ci barab bi rek moo tax ñu delloowaat ma kàddu gi waaye ñoom buñ toogee man wóor maa wax seen kanam ñun nag bàyyi faalu kër mën na bëri lañ fas fii ñu nekk ñëpp lañ fi nekkal nag nekkaluñ fi kenn sëriñ bi lañ fi nekkal ak taxawu njaboot bi ak saytu li fi nekk ba dara bañ koo ruur loolu rek suñu kon nag itam ngeen ñaanal xam ne yan boobu yan bu gis la lépp lu ñuy wax ak lu ñuy def ci ndigalu sëñ baara ndax fii ñu fii ñu toog bu sëñ Baara woowoon duñ delluwaat kër Mandoumbe kon nag kër Mandoumbe benn baar fi na sëñ Baara ko yor te sëñ Baara lépp lu muy def rakkam yi mu ko seqal la koy waxtaanee ñun njaboot gi nag nga xam loolu te jàpp ko te fas yéene dellusiwaat ci cosaan li fa fas yéene koo taxawal fas yéene koo dëgëral ba fu ab dëkk di yegg suñu dëkk yi mën na faa yegg ñoo ngi leen di jéggalu bu baax ñoo ngi jéggalu jërë ngeen def isaakumullah xeyran kaddu yi lii sëñ Bàcci doon kaddu yu sëñ Bàcci doon tànn léegi moom ni ñu ko waxee rek lépp genn kàddu la kàddu sëñ baara bu sëñ bàcc waxee moo moo ko jot liwaale jot liwaale kàddu njaboot yépp waaye baat yi ma ci bëgg a wax rek baat yu gàtt la maanaam gën a jot li catug sëñ bi rek catug sëñ baara ci njabootu njaaxu képp ndax eh, daf ma cee jox ndigal wax ma ne ma naa ko fi teewal ñëw ànd ak sëriñ Muntaxa ak sëriñ bàcc mii te loolu xëy na ak ak ak ak yaramam wu ñàkk sawar ak magam moo tax waaye su ko mënoon mooy ñëwal boppam teewal ko fii mooy ñëwal te euh, teewal boppam ndax xam na bis bi ni mu toll ci moom ak it xam na yëg gi ko njaboot gi yëg njabootu njaaxu gépp nag euh, bi nga xam ne yàlla dogal na euh, yàlla teg njabootu kër Ndume ci loxoom ba léegi ak la ko jiitu lépp loo xamante ne bii sumb na ko. njabootu njaaxum gépp ànd nañ ci ak moom di diglu ay ndigalam di bàyyi ay tereem ba loolu dem na ba ci keroog bi ñu jàppee bis bii keroog ci réunion ba nga xam ne rek fa la ñuy jàppee bis bi ca saasa laata ñoo jàpp bis bi góor a daf maa daal di woo ne ma euh, laajal ma ndigal ci sëñ bi xamal ko ne njabootu njaaxu ñooy laaj ndigal ci bis bi nga xam ne loolu loolu ak ak yëg mënu ko weesu ndax it wax dëgg yàlla mënoon nañoo jàpp bis rek ba noppi ne ko jàpp nañ bis sàngam waye bala ñoo japp bis dañ lay lañ ndigal loolu mooy wax dëgg yàlla xamal nañ la ne la kat cër bi nga moom jox nañ la ko bu baax kon sëñ bi mooy wax ne cër bi ngeen ko jox xam na ko bu baax te it cër boobu wax dëgg yàlla kowe na ci moom ndax it wax dëgg yàlla eh, nit loo ko jox cib cër dana ko xam sëñ bi ne mi ngi ñaan rek bis bi mbooleem li ngeen fi ñaan suñ borom nangu ko mag ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon di seeni waajur ak seeni maam ñaan yi ngeen fi ñaan yépp yàlla na suñ borom jotal leen ca na ngeen gën a fonk liggéey bu baax te xam ne li may wax rek àdduna moom kenn noppalu euh, liñ naa ku baax sonn ku mel na ne nit sonn ndegam ña nekk ca leneen sax ñoo noppalu waxuma laa ña nekk ca lu baax ndax da ngay ñàkk sa alal ñàkk sa temps euh, daj ab coono waaye boo nekku ci lu baax it du tee ña ne ca leneen it taxu taxu leen a noppalu kon da ngeen gën a jàpp baax te xam ne lii lu am solo la dajaloo di ñaanal mag ñi mag ñu baax ña nga xam ne ñoo nekkoon fii sëñ Baara léeg-léeg dañuy day faral di waxtaan ak man di ma tudd mag ñu baax ñi nga xam ne ñoo newoon kër Ndumbe léeg-léeg mu tudd ay mag ci danaa ci tudd léeg mu tudd ku mel ne euh, Baye Mbaye Ndiaye man Baye Mbaye Ndiaye fàttaliku ma ko mooy maami Ablaye mii sëñ Baara dana may faral di wax naa ma daanaka waxtu yu koy fekk sëñ Minaar yëpp moo ko daa jiite sëñ Minaar Baye Mbaye Ndiaye moo daa jiite sëñ Minaar waxtu yu xam nga loolu ànd bu rafet la woon mag ñi seenu àndin dafa rafetoon euh, ànd bu rafet boobee mag ñi àndoon yéen it fet li ngeen ko ndax li may doon doon gone fàttaliku naa ñëw naa fii njaaxoo fekk pencum pencum njaaxoo nga nee fekk ñangeen ñangeen xaw a beru ne tuuti euh, caameen nekk ne waaye bi ngeen demee bay taxawal mbooloo mii ku ci nekk nekkoo fa naa ay sama kër baay gi fi la newoon ak sama kër gaay gi fi la nekkoon da ngeen a boole lépp da ngeen boole lépp rek ne ne pencum njaaxu askanu njaaxu kon loolu mooy wane ne àndin wu rafet woowu seen waajur yi àndoon ak àndin wu rafet woowu seen maam yi àndoon ba léegi yéen a nga ca kon daal loolu loolu rek moo doon kàddu yi kàddu yi soññee rek la yàlla na suñ borom jàppale leen yàlla na suñ borom dëgëral leen te it ñun ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo gën a féete ndaw te te te te te te te bokk jamono ndax li suñ bàcc wax léegi rek kër mu numbe ak njaaxu lépp euh, njaboot gi rek la benn dëkk bi rek la nañ gën a nañ gën a jàppante bu baax gën a boole suñu bopp bu baax lu ci lu ci lu ci waay nekk rek sa moroom nekk ca ndax mbooloo mooy doole asalaamaaleykum wa rahmatullah